enerji léegi yaa ngi méttiwul li nga xamante ni mooy retard bi championnat am ban message ngay lancé ci loolu ginnaaw boo ñu ñëwalee ci feeñ bi comme li sama collègue bi wax rek sapeur yi dëgg la ñëw nañ def nañ parce que bi ñu ñëwee ñun luñ mënutoon def ñoom def nañ ko fexe nañ déplacé oto bi génnee xale yi mais comme li mu wax rek mbaxen dafa nekk loo xam ne nii du xaar ay heure comprendre nga man sama gis-gis gouvernement Sénégal war na mën a xam nga war na mën a am ay points yoo xam ne nii dañ koy placer ci quartier yi pour issue de yo xamna ni bu accident amé bala sapeur di jogé fu sori di ñoo ñu dem def les premiers soins bu nekké quoi rouge nañ leen ko jox utal leen salaire di len ko fay parce que bakkan dafa fort xalé yi bo xolé li tax ñu dé yalla suñu borom donc tudon nañ ñom dañ fi jéggi tay lool suñu borom moko tudon ba paré kèn wax kèn mënu ci dara mais li tax tamit ñu li leen gëna a manque d'assistance parce que xolé euh ñi fi njëkk ah, ñu ci lañ bok man bobu taluma taluma ki parce que man bima gisé choc bi dama né auto bi nit koy dund nekkut ci man loolu la wax parce que sama kanam la man ben man mom motax man ma rendu compte choc bi parce que mom la gis muy arrière ci ko auto yi par la suite ci la né man bi lumuy def mu jek di gis camion bi di ñew ak vitesse bim ñëwé ci la jël garde à vous jëlale taxi man ñew door leen ci mur bi ci lay e doora taxaw kon donc du coup waji euh perte no contrôle en même temps jeune la parce que ñuko ñuko japp ñu ci lañ bok bimu wacce dafa daw

xale laa mais maa ko donc loolu lay jël jëkk lancer appel permis yi bi ñu ko mënee yokk wa lourd ben âge wala balaa ñu la koy jox ñu xool ndax yow tu es responsable wala tu n'es pas responsable parce que man ki ma gis tay bu responsable franchement bu ñu waxantee dëgg te yalla tax waaw affaire bi nag loolu laa si jëkk a ñaaw parce que lii dafa yàgg tout récemment camion rey na fi ay élèves Nord Foire def na ay à peine ay un an après fu mu mujj mujjul fenn barki démb dégg nañ benn gendarme moto mbëkk na ko dee na tëj nañ ko si mois 3 mois sursis 3 mois prison mujjul fenn kii noonu lay demee rek après day rombaat doxi ay soxlaam ñu joxaat ko permis am. ndax mën nga ñu ñëw laal. waaw ci euh, choc la am ak ñaata mort. choc bi man si li ma gis am na 4 blessés 3 morts parce que oto bi si desant descente la allée bi descente la apex bi descente la dafa am ñaari doodaan dafa njëkk a yëg benn doodaan bi ray benn vieux marchand ambulant boo xam ne da jaay ay

ay bakkan nekk ci biir garde à vous yi mu jël ko teg ko ci kaw oto bi loolu du yomb pour ñu génne xale yi foofu noonu ñun def nañ lu nekk suñ sañoon xale yi duñ dee suñ leen mënoon sauver ñu sauver leen mais amuñ moyen ñu leen sauver parce que camion bi dafa diis yi jëm nañ daaneel lu nekk def nañ ko mais amuñ moyen yi sapeur rek moo mun a am moyen yi ñu waroon yi mun a tax ñu ñëw sauver xale yi dama man sapeur bi ñu ñëwee def na liggéey mais dañu retard ma retardement boobu ci laay lancé si gouvernement Sénégal ñu xool nu ñuy def buñ mënee yokk effectif bi yokk oto yi yokk poste yi quartier bu nekk ñu teg fa sax ay secouristes yoo xam ne ni croix rouge ñuy doon ñuy def premier soin wala ñu jàngal sénégalais yi premier soin len tamit dinaa ko ñaawlu sénégalais tàmm na loo xam ne nii du ñu jëmale kër ñu gisee ku nekk si la vie et la mort nga war ko dimbale nga génn sa téléphone di filmer du yoon d'accorduma je suis pas d'accord pour ça téléphone yi non dafa mais nekkul ne lu ñu romb ci mbedd mi rek dañ ko war a filmer publier ko parce que tey bu nekkoon sa yaay wala sa doom wala sa mag wala sa rax doo ko def doo ko nangu tiim ko di ko loolu tamit ñaawlu naa parce que fii ñi fi amaan na buñ tegoon seen téléphone ñëw dimbali ñu kon mun na xale yi mën nañ sauvé mais taluñ ko parce que ku nekk yaa ngi taxaw pour foo laa ko pour jël ay image loolu c'est pas normal c'est pas du tout si Sénégal yi dal papay xale yi dal vieux commerçant na ma dal ma mun na dal keneen ku yàlla bind ku ku fi matal da ngay dem waaw ñii nag lii ndogal la mu ko ko gisee leneen lu dul ndogal mais man ci kaw ndogal yi dama si gis ne am na manque de négligence bu am si chauffeur camion yi niñ leen di joxee yi da ngay gis xale bu ndaw ama amagoo sax 30 ans ñu jël permis poids lourd jox la ko ngay directionné oto boo xam ne ni ay tonnes la jël yeb ko chauffeur bi bu munoon dawal carrément ñi fi ñi fi nekk chauffeur bëri nañ ñi fi ñëw ñëpp dañ ne chauffeur munul dawal parce que bu munoon dawal du jëlee oto bi fee ba fii te utul fu dóor oto bi teg ko fa gaare ko fa bu ko dugaloon si miir cimetière yi sax ñu mun a wax mais dafa perte contrôle ba ñëw ba rayaat yeneen ñaari nit comprendre nga kon choc bi buñ am na 4 morts am na 3 am na am na 4 blessés am na 3 morts sur le coup ok merci

ak blessé waaye lépp nag suñu kanam la xewee ñun ñëpp ñun on est on est témoin quoi je veux dire waaw lépp suñu kanam la xewee xale yi ba choc bi di am ils étaient tous en vie mais problème mu retard xam nga ak manque d'assistance aussi yooyu noonu moo causé yii nii yëpp mais xale bi bu muy benn xale bi keneen ki moom perte nañ ko mënuñu ko gis parce que camion bi dafa xaaj oto bi kenn rek lañ mën a am benn xale bi mu ngi doon dund comprendre téye na sama ñaari baaraam yi sama loxo yi la seddee man ma koy téye mi ngi nooy yi muy def lépp mais il souffrait tellement bon. ñaata ñaata ñaata lañ woon ci ci taxi bi. ils étaient quatre waaw ñun man ak benn copain ñoo assisté chauffeur bi ak euh, papay xale yi je seen frère papa la sax ñoom la àndaloon quoi. donc mu nga ñu déclassé accident bi mu demee oto yi nan nan nan non man dama parce que ba ma génnee gis affaire bi dama choqué wu quoi parce camion bi de un dafa perte contrôle ki ko doon dawal il était jeune comprendre nga donc yenn daal pour man war nañ ñu ñuy jox permis parce que entendre nañ aussi euh, apprenti bi moom présenté wu na dégagé wul ay responsabilités entendre nañ ko nee nañu euh, que bi bu mu amee permis il y a même pas un an xale la comme ñun. chauffeur camion un jeune bi nga xam ne moo def lii nii yëpp trois morts ak ay blessés xam nga depuis 13 heures affaire bi 13 heures la am. donc combien de temps la Sapeur toog soog oh, a ñëw. na temps yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na ngi sëgg bi juste ni ah dañ ko déplacé sax mais maa sëgg ci xale bi nii xale bi nii dee sama loxo durant 30 minutes ñu ngi def ay effort pour jéem a bouger camion bi mais camion bi dafa chargé woon donc mënuñ ci woon dara. kon en fait ñett xale la ak kenn ku mag ak chauffeur bi. Euh, ñaari xale la. waaw ak seen frère papa ak chauffeur bi taximan bi mais ñoom ñaar échappé nañ quoi mais ñaari xale yi ñoo ci ñoo ci yam ak paa bi mu njëkk a jël fële. mën nañu xam environ xale yi ay seen at ñaar la war mu toll. Hmm, à peu près bon quatre ans. xale yu ndaw lañ ah 4 ans ay maximum 5 ans ay góor. d'accord euh, beneen taxi wala. waaw dégâts ci kaw la. ñun ñu ngi signalé depuis Nord Foire ñu ngi gis camion bi xam nga on dirait amul frein quoi on dirait amul frein ba li mu doon daw dafa bëri teel teel ñun teel teel rek la ñuy dégg teel teel rek la ñuy dégg. waaw c'est ça dooraan bu mu gën a yéeg nag fi descente la koy gën a sànni mu perte contrôle loolu nag ci la ñëw ci intersection bi jël lu muy lu ravagé ñëpp mais intersection bi rey na benn vieux fële aussi benn vieux marchand ambulant. benn piéton la quoi. effectivement noonu la demee. léegi ay yan heure loolu xew. ay plus 13 heures 13 yow ngay wax lan ngay wax comme genre active bu am si foofu lan nga leen man damaa page lancé un message d'abord ñu xool nu ñuy joxe permis surtout ça parce que xoolal benn xale bu ndaw d'abord yor camion xam nga def dégâts yi nii yëpp ba pare ngeen a daw. sam benn copain moo daw intercepté ba jàpp ko ñeneen ñi ñëw mu ko téye quoi. finalement ko loxo. waaw teg nañ rek lañ ko loxo euh yaa ngi ñaawlu itam yéexaay bi waaw maa ngi koy ñaawlu trop trop trop trop maa ngi koy ñaawlu trop te je lance un appel xam nga ci gouvernement bi aussi ñu xoolaat ñu xoolaat leen réglementé parce que lii c'est trop quoi c'est trop waay itam lu ci mën a wax sapeur yi aussi seen assistance yi xam nga bien vrai ñëw nañ def nañ seen liggéey xam nga luñ ci mënul woon boog ñun defal nañ ñu ko ñoom mais ñun ñoo leen fi jiitu mais question de temps aussi xam nga bakkan moom du loolu loo xam ne day xaar bakkan la parce que ñun ñu ñëwee sax ñoom xaw nañ discuter ak ñoom mais lépp dañuy comprendre rek choc la ak boo mësul gis yenn choc yi surtout man dama ma part xam nga xale bu ndaw à l'âge de quatre ans wàcc samay loxo nii xam nga c'est douloureux quoi neexul ci xol.